ministre bi dund bi mu joxe fii dafa dañ dem jënd mboq moo xam ne bii gerte lañ ko defal xotti gerte mbeq mu dafa oh, saako yi dañuy xeeñ sax ba pare ku nañ jox la genn wàllu saako yow genn wàllu saako genn wàllu saako aliment yow mën nga boo yoree sa quatre-vingts ba tête noo koy du ci dundale xam nga yooyu c'est du saupoudrage moom warul woon nangu loolu bu mënul jox suffisamment de vivre aux éleveurs mais na ko mais ñu ngi leen joxe nañ woy joxe nañ génn nañ 3 milliards léegi jënd nañ ko jënd nañ ko jox jur gi mais 3 milliards est-ce que c'est suffisant parce que euh, jur gi dañoo bari wala mu demoon boog chargé quand même fekk boroom jur yi ci àll ba nga xam ne léegi nañu nga xam ne tu as avec 80 têtes la baag yooyu yaa ngi kii mais ñu wàccee loo au moins 20 40 sacs mais ñun da ñëw fii ñu indi ni bon yow yaa kii yéenay bokk benn saako. léeg-léeg kii kenn benn saako saako saako saako bu 25 kilos mën nga cee dundal say say sa disque. dañ leen koy jox gratuitement wala dañ koy. dañ ko subventionné waa ab. mais subventionné su da foo subventionné da ngay subventionné lu baax ñun en tout cas aliment bi ñu indi du aliment bu baax yaa ngi bëgg ñu ñu engraissé yaa ngi bëgg ñu def embouche ngay ngay dem di tànn une mauvaise qualité. am wax ah, liñ fi indi fii kii la kii la xottu gerte lay xeeñ. boo ko nee day am xet kooku xar xar xar moo jëlee quatre cent mille huit cent mille di nga ko loolu. ah loolu baaxul waruñu ñu ko jox. te bu ñu ñu ne jox nañ dund gi ana dund guñ joxe fii ISRA mu ne ay ay ay cinquante sac. cinquante sac xanaa mag kii man man man danañ ko lekk par par mois. ok alors maintenant euh, kon donc li nga wax daal moom mooy que ni tabaski ren bi xar du am du yomb par rapport li ministre bi wax ne ku ci nekk da nga yàpp jàpp ne ne moom ku ci nekk da am xar. man daal dégg naa nee na téléphone na am éleveurs yi ne ku na ko defal liste pour pour mu xam ñaata nga am ak yooyu mais moom dafa xamul ne yow man bu ma la defalee li ma nee ca ca Louga Thiolli yor ay xar yu laaxoñ yoo xam ne daanaka xar yi rey mu dee reyul mu dee la ma defal la liste yooyu mën nga ci basé. diw jox na la liste huit cent xar ki jox la sept cent ki jox la ki nga calculer muy deux millions de xar nga ne am naa mais na déplacé wu. ñun defu leen ko. non ñun ñun ñun ñu koy def ñun ñun du ñu ministre yi ñun kay li ñu yor ñu ngi koy sàmm ñun di ko defar. mais leen ko liste bi mu wax ne leen ko jox. non ñun waxuñu ko sàmm yi la wax éleveurs yooyu gars ne fii i xar dana baax wala duñ jaral nga ko engraissé kii mu ngi mu ngi jënd xont gur gu ne ay ay mboq yëpp la xaram yi lekk comme ay buur. parce que daa bëgg mu engrais mais le pôle qui est à nga woo ko fekk ma nga booru déeg ba nga ne ko recensement mboccoor yeeg loolu lay jël il te donne tout toute une liste boo xam ne xar yooyu boo ñëwee fi ku koy jënd. bu nit ñi am jafe-jafe. waaw ba pare it xar yooyu bu taw bi gis nga ni mu demee pour nga tra léegi kenn ñëwagul est-ce que boo leen boo leen ñu ñëw du ñu wala ñu sonn.